boy li no boy li no boy war jolo jolo am na de boy soxla naa la trop nag so gisee sama message dama siin boy yaa ngi en ligne gis naa la gis naa la jël ma boy se urgent dama la soxla boy te te li ma lay wax nii bu fekkee daa am ku ne sa côté bàyyi déplacé wu c'est c'est un peu c'est un peu urgent boy gaawal waay boy boy est-ce que dama sax jaxasoo boy xaw ma sax lu may wax waaw booba gar lan la lan la lan mo xew Boubacar jàppale ma ngir yàlla yoruma xaalis tey. booy Alioune booy affaire du question de xaalis booy man dama dama problème dama am problème te dama soxla sa xalaat quoi loolu la de du question de xaalis booy lu ma lay wax nii lu garaaw la tamit. waaw comme que du xaalis keñ waaw maa ngi lay dégg waxal maa ngi lay dégg. booy Alioune li ma lay wax nii c'était vers vingt heures. boobu maa ngi jugee gaaraan Moodu di ñibbisi mais ñibbis ñëw sama buntu kër si laa gis benn xale soxna la sax am doom nii day il paraît que day doog a génn hôpital sax waaye tellement li may wax nii nii dafa doy waar ba waaye je perds sax moo mots xaw ma sax lu ma tax caaxasoo booy yaa ngi dégg li ma lay xale bi bu ma gisee ak xale bu ndaw bi sama yaram daw moment boobu mi may mi may saraxu pour fanaan pour fanaan ci kër ga ba xëy daal di delluwaat. affaire bi daf ma jaaxul trop trop trop trop trop boy ma ne woon xaamu waxtaan seeg yow bàyyi nga jox solution. waaw Babacar Babacar ban doomu jaamur nga toñati tere naa la jigéen ñi ba taay te xamoon naa ni wax ji nga wax yépp xaalis nga bëgg parce que booy bi nga biiral moo tax. booy booy man man ma de booy yow da nga yaakaar may kaf man sama dëgg laa nekk booy booy bi deux mois mi ngi sama kër nanguwul ñibbi xaw ma ba xam yow yow yaa ngi dégg la may wax wala déggul ma la deux deux mois mi ngi sama kër laa nanguwul ñibbi yaa léegi nag man xaw ma lu may def fu ma génnee si mbedd bi ñu jàpp sama jabar la yaakaar sama doom la xaw ma lu may def xaw ma benn solution booy loolu tax moo wala nga yaakaar ne may kaf kafuma de booy. mais yow mais yow da nga nyari nii yow ñaari weer xale bu jigéen bi nekk sa kër te waxoo ko kenn waa demal police doo dem police loolu est ce que wóor na waa te su fekkee yow xale jigéen bi dara dal na ko wala bébé bi léegi bu ñu woowee police yow lan ngay def doo indi sa bopp ay problème bu xanaa déggoo la affaire du question boy boy bi tay ci suba la ma révélé lépp lépp lépp lépp lépp lépp sinon ma leen ni dafa am jëkkër te jëkkëram xamul ni dafa ëmb ndax lan daf koy bañ a daf ko koy bañ a wax est-ce que yaa comprendre li ma lay wax boy li dafa graw boy en plus ne même nee naa ko mu dem si fanam wax leen ko mais ba léegi boy bi boy bi dama ko gisee ni muy ni muy comporté woo boy bi bugul kenn xam ëmb bi. c'est tout tout tout Aline kii jubul dafa trompé jëkkëram. wax naa la demal police demal police te yow depuis xale bi jigéen ba mu ñëwee ba léegi yow yaa koy dundal yaa koy jox lu muy lekk. booy Alioune booy histoire bu bizarre laa lay wax nii booy booy bi depuis deux mois mi fii nii te ëmbal su ma la ko waxee xam naa duma ko mais booy bi papa yi jëkkëram moo ko ëmbal te booy lu si garaaw ba garaaw nag. ah papay papay papay papay jë jëkkëram ji daf ko drogué daf ko drogué violé ko mu ëmb booy Alioune ji ak papaam duñ ay sénégalais alors que booy bu jigéen bi sénégalaise la si ay comprendre booy mais ñoom yàgg nañ Sénégal nag depuis vingt ans ñi ngi fi ay malien lañ ñoom. booy problème bi critique na de léegi xam na nañu def léegi suba suba dinaa fa ñëw suba maa ngi fa mais su ma ñëwee suba nag dinañ dem police parce que loolu moo gën a wóor. lu wax nga ni police booy doo génn police affaire yi nii kii dafa bëgg jëgëram ba lu ñu wax ni police gaaw nga ci trop ah.